seen revue de presse li ci yéen kay yeeg Lamine Samba. bisimila ku déglu di nga dégg opération de communication bu ancien président de la république bu Sénégal yéen kay yi nekk ci réew mi yépp ñoo ko xëyee tey l'observateur yéen kay ni Abdoulaye Wade bàyyi suñu Karim dafa doon soo démb xaw tuut jabaram Viviane ñu tëj ko ci kaso bi l'observateur yéen kay ni Abdoulaye Wade. bu fekkeen woon ni arrangé wul woon ak avocat yu yaan wàdd kon ba léegi ñi ngi takkal boor jabaram ji waaye Seydou Gueye yor kaddu APR ne ci biir l'observateur yéene kaay Abdoulaye Wade amul dara lu muy tiit bu fekkee ni moom ak njabootam sàccuñu alalu réew mi waaye Mor Talla Gueye bind ci biir l'observateur yéene kaay ne Abdoulaye Wade daal ku yabu di ko ñaanal démb dafa doon xuppaate ak a tiitalaate le quotidien yéene kaay ne ñi war a tiit kat ñooy ñi nga xam ne ñoom la Abdoulaye Wade dénkoon ay ndomba tànk yu rëy procureur de la république activé na ay notaire te ñooñee kat ku yabu di leen yërëm ku ci mel ni Karim Wade Pape Diop Astafurila Moustapha Diop Souleymane Ndéné Ndiaye ak Mamadou Seck ak Ousmane Ngom Sud Quotidien ne Abdoulaye Wade moom dafa défule wu démb ci régime Macky Sall amul nag lu mu leen yàkkul te lépp nag le Quotidien yéene kaay ne audit yee ko waral audit yooyu Sud Quotidien ne Abdoulaye Wade da cee ndax démb ko xool xar kanamam ak jël weeru ndox di ko naan moom sax moo ko waxal boppam ne fu nekk jàkkaarloo naa fak way taskatu xabaar yi waaye may jàkkaarloo yéen di naan ndox c'est la première fois laas ko diñee ne Abdoulaye Wade bu doon te gaynde la démb dafa génne wey ne lu ëpp tuuru nag ndax ñi may bëgg a sonal bëgg a sonal sama waa kër te ku laal Viviane man mii nga laal mësuma xam ni Pape Diop mës naa tëdd ci kaso bi te loolu nañu ko leeral bam ne koj ne kororoj réew mi quotidien ni Abdoulaye Wade bi mooy ñaareel bi yoon muy daanu nag ndax gannaaw ba ñu ko laminé démb moom dafa meloon ni dëmm bu jëfur te yàlla xam ne ni moom ci jëmi boppam moo ko wax ne mënoon naa fexe ba réew mi kenn dootu ko yor ci jàmm Ousmane Tanor Dieng ak Moustapha Niass ay sàcc pire lañu de Abdoulaye Wade ko wax direct info ne Abdoulaye Wade dafa yëkkati drapeau bu weex tàll di setal boppam te ba buuf tobawal kenn mësta gis saabu buy fóot boppam le populaire yéenekaay ne bu doon te doonte otoraay la Abdoulaye Wade dafa wàcc ci raay bi démb ndax ñépp dégg nañu ko ni lépp lu mu doon wax setal doom ji jabar ji ak ñi mu àndal la libération yéenekaay ne ña mu àndaloon bërki démb la doon xas muy Pape Diop ak Moustapha Niass di artu Macky Sall nag ne ko nag ma bàyyi tout tranquillement audit yi nga xamante ne moom nga tàmbale nanga ko yeggali ndax muy man di sama njaboot amul kenn ko xam ni mën naa tukki ba nekk ci jàmm enquête quotidien wax ko ci ay français yu leer nañ ne Abdoulaye wa dafa ne touche pas à bu kenn laal sama njaboot senegal déglu leen daan nañu démb bête noire bi mu ci diggante senegal ak Maroc stade yéene kaay ñu ko xamal ne sunu gaynde yi ñoom démb beneen affaire la Maroc la ñu daan benn bal ci dara kan mooy daan ci diggante guy gi ak Ama Baldé dimanche lay doon doomi Alaaji Ale Njaay jee ko tëgg ca stade wal Walfadjri Sport laaj Boy Bambara Mohamed Ali ñoom ñaar ñu wax li guy gi ak Ama Baldé mën ak li ñu tële Leewtoo yéenekaay ne ku tële mbaa ku juum di nga daanu dimanche ak jàmm mbay génne ci biir suñu làmb guy gi dafa war a moytu Ama Baldé jàpp tànk yi ndax bu koy jàpp di daan waaye guy gi ci biir suñu làmb la ne li tax mu jël xale bi mooy pour freiner ko la xale bi ne ko saaga yàkkamte xeex la li leer ba leer daal mooy danaa dal sa kaw te danaa la daan mbokk yi lii ma leen di wax musu leen koo dégg te xam naa ni su ci pare dootu leen ko dégg ilaa yow mi diina abadan ci yéene kaay benn waay lañu jàpp fële ca mu doon jaay yàpp nit i i i yàpp nit nag la wax ci yéene kaay ne dafa jàpp benn waay bu am fukki ak juróom-ñeent rindi ko loqati bët yi denc ko saam yàpp yi fees ko sam yàpp yi tàmbalee jaay ñu jàpp ko mu leer ni lii yàpp nit la waaye li ci gën a garaaw a ngi ñëw yokku leen rajo yi ndax ñi tiit moom mbokk seen fit dana gën a dem nee ñu nag fukki nit ak juróom-ñaar réer nañu mër ca gox ba mu dëkk ndax gisatuñ leen gaa ñi njort nii rey na fukki nit ak juróom-ñaar yooyu waaye beneen bi ci gën a garaaw a ngi nii ba ñu demee ubbi këram dañoo fekk mu weer ci ligne gi ay yàpp nit yu fees del na ma baal ci kàddu gi mbokk yi ndax nit kuy wax moom bés bu yàlla sàkk am lu mu wax loo waxadi waxadi mbokk yi ne kii njëkteef la mbaa c'est un sorcier ngir bañ ko wax ci wolof am déet allahu akbar master office